Macky Sall a dit pire Macky Sall a dit même que si les élections étaient reportées l'année euh, quand il était euh, que il allait mettre en place un gouvernement parallèle, parallèle il avait dit que si Ablaye Wade ne sort pas du palais on va le, déloger il a dit des choses pires mais on l'a pas arrêté parce que on savait que c'était un contexte politique, politique. Mmh. xam nga nit euh, bu la yàlla jiitale il faut avoir au minimum cette immunité d'accepter en fait mm-hmm. yow lu ñu la may. il faut avoir le voilà il mhm. faut que lu ñu la may. gis nga yàlla bu la demee ba teg la président dëkk cest à am nga lépp li nga war a am kon yow bu fekkee ne malgré nga nekk président yow mënoo muñal nit c'est que yow am personne baaxuloo. Mhm. voilà man je pense que euh, c'est c'est grave ce qui se ah, élection yi ñu jëm ndax wóolu nga ko ak ni mu tàmbalee nii processus bi. parce que liir naa la fan yii passé. nga ne dañoo war a mm. sécuriser vote citoyen waaw man moom mënuma wóolu Macky Sall avec ses ak président Macky Sall ñi mu àndal parce que <laughs> man déjà tout le temps dama bëggul wax samay wax tout le temps. Mm-hmm. mais damay xool man lu ñu ma teg. loolu boo ko gisee. Mm-hmm. nga xool lu ñu teg président Ousmane Sonko nga xool lu ñu teg président Diomaye fay nga xool lu ñu teg ñeneen ak ñeneen. da ngay xam ne ñii conserver nguur gi jaral na leen lu ne eh, man nag aussi moo tax tout le temps man sama discours je me dis que tout ce qui devait être dit en termes de programme a été dit ce qu'il faut dire au Sénégalais désormais c'est de rester déterminé xam nga lan mooy déterminé mhm. mooy bañ def de la triche mooy cette politique que les gens faisaient là nga nekk ci réseaux sociaux yi ne gars dem leen voter yi allez yi yow yaa ngi nelaw sa kër il faut sortir à six heures du matin aller sécuriser les bureaux de vote parce que c'est un problème de souveraineté encore une fois. c'est un pro